di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ak taysiir yàlla faj aajo yi saafara jàngoro yi mosuñu ci musiba yi ak balaa yi wàcce fi jàmm ak yërmande yërëm way dawla yi dugal leen ci aljanna yu tedd bi xayri xisaabin wala iqaab ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ko defee rek ñi ngi woon ci aj comme ni ñu ko waxee rek ci euh, barnaamij bi nga xam ne commencé woon nañ ko ti jéggulu ci ndog-ndog yi xam naa ne moom euh, du suñu tayeef waaye ngeen baal ñu ko rek bu ko defee ñu daal di ñëw rek ci suñu euh, waxtaanu tay bi ci lu jëm ci wàllu aj waxoon nañ ci aj lu jëm ci aj ak ngëneelu aj ak yenn yi ci aju aj nag nekk jaamu yàlla boo xam ne bi suñu borom moo ñu ko sant mu bokk ci ponk lislaam yi waaye gannaaw jaamu yàlla gi xiima bi nga xam ne aj am na ko bokk na ci ñu wéetal suñu boroom bañ koo bokkaale ak dara bokk na ci tim ñu ormaal te laabal néegab yàlla boobu ormaal tim yi nga xam ne ñooy shaairullah suñu boroom subhaanahu wa taala dafay wax na wa laqad bawa'naa li ibrahima makaana albayt allaa tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya littaa'ifiina walqaa'imiina warrukka'i sujud xam nga suñu boroom day wax ne gannaaw bi ñu feeñalee Ibrahim place bi nga xam ne fa la néegub yàlla bi nekk te loolu dañ ci déggee ne kaaba gi suñu maam Ibrahima defu ko fa waaye daf ko fa fekk am na lum fa tabax nag waaye daf ko fa fekk te li koy tegtal mooy aaya bi ma wax léegi ak beneen aaya ci alquran suñu borom di wax naan inna awwala baytin wudia linnaas lalladi bi bakkata mubaraka wudia linnaas kon première néeg bi nga xam ne dañ koo tegal nit ñi te mu nekk màkka kon dañuy xam ne ku ko tegal nit ñi kon du nit te Ibrahima ci nit ñi la bokk kon Ibrahima daf ko fa fekk kon Ibrahima ba mu ko fa fekkee da ngay gis ni yàllay waxee ci alquran ah, su fekkee ne moom kese la ni muy waxee néeg bi ak su fekkee ne moom ak doom ak Ismaayila ni muy waxee néeg bi dafay wuute ndax ba mu ko fekkee mu nekk ab ab pàkk rekk boo xam ne bi daanaka màndarga yi rekk ñoo fa nekk day wuuteeg bi nga xamee ne doomam di Ismaayila jàppale na ko ba mu taxawal pàkk boobu def ci ay xawaayit day wuute ni ko suñu borom di tëggee su suñu boroom di wax naan walla xat bawaanaa li ibrahim makaanal bayt xam nga foofu ibrahima doo nga fa nekk ismail ñëwagul allah tushrik bi shay'a wa tahir baytiya lit taifiina wal qaimiin kon boobu buy tatahir bayti ba ah ñi nga xam ne ñoo fa dëkk di màggal néeg ba ak di ko wër taifiin wal qaimiina mooy ña fa dëkk waaye nag su fekkee ne e, day wax ci côté boo xam ne mu ak Ismaayil la ca boole fekk na booba tabax nañ néeg ba ba mu am miir miir boobu nag nit ñi ñëw di ko wër di ci def seen ak jaamu yàlla boobu day am beneen uslub moo tax suñu boroom di wax naan wa ahidina ila ibrahima wa ismail ñoom ñaar la fii wal aakifiina la wax wawul wal qaaimin wal aakifiin war rukaa sujud kon foofu day wan ne kon binaa mang fa boo xam ne bi euh, day am taif ak aakif kon loolu mooy wane ne ci gàttal rek ne néeg ba néeg bu yàlla la boo xam ne bi defar na ko bu yàgg ba ibrahima di ñëw ibrahima bi ñëw wa iz yarfau ibrahima alqawaida min albayti kon fekk na fa néeg ba loolu nekk néeg bi yàlla boo xam ne bu mu fonk la bu mu euh, laabal la bu mu sellal la bëgg tim ñu jaamu fa yàlla comme nam ñu ko digalee ñoo ngi jéggal xaw nañoo guddal fii waaye ak leeral la woon rek tuuti léegi nag dañuy continuer ci li nga xam ne mooy suñu darsi bi rek ñu jëm ci li nga xam ne mooy ponki aj gannaaw bi ñu xamee lenn ci kaaba gi nga xam ne moo ñu tax a jóg moo tax ñuy dem di aji ndax suñu boroom daf ñoo wax ne euh, walillahi ala naas xajjul bayt kon bayti boobu ñu tax a jóg moo taxoon ñu doon am yuñ ciy leeral tuuti aj nag am na ay ponk bokk na ci ponki aj yooyu comme ni ko fuqaha yi waxe wala boog mazahib bi niñ ci wuute soo demee ci ñi nga xam ne ay axnaaf lañ muy ngiiru alxanafiya ñoom ñaari ponk rekk moo am ci aj yi nga xam ne soo ko bàyyee sa aj yàqu na ñaari ponk yooyu mooy lañ mooy wuqufu arafa ak tawaaful ifaada tawaafu ziyaara mooy tawaaf bi nga xam ne mooy tawaafu xajj bi ak wuquufu arafa ñaari ponk yooyu dong mooy ci ngiru imaamu abu xanifa soo ci bàyyee benn sa sa kii yàqu na sa aj yàqu na waaye ñoom ñaar soo leen bàyyiwul leneen loo mën a bàyyi rek am na luñ ci mën a def su fekkee ne lu ñuy jàng la ñu jàng ko su fekkee ne tim loo xam ne jaru ko muy loolu bu ko defee moom ngiru abu xanifa eh, niya boobu noonu muy niyatul ixram al ixram xam nga ixram dafa am ñaari mbir yu ci laxasu eh, libaasul ixram ak niyatul ixram bokkuñu sol gi nga xam ne danga koy sol yére yi nga war a ajo wala làmbaay yi nga war a làmbaayoo pour aj loolu waa waajib la waaye yéene bi ngay yéene pour aj mooy bi ngay waxee labbayka allahumma xajjan aw xajjan wa umratan boobu noonu ci yenn ngir yi mooy rukknu waaye bu dee ci ngiru imaamu abu xanifa eh, boobu noonu charte la chartu sixa la kon moom loolu bokkul ci ay rukknoom kon rukknu arkaan yi nga xam ne ñooy arkaanul xajj inda abu xanifa wuquf arafa la ak tawaaful ifaada wala tawaaful xajj wala tawaaful ziyaara boo ci wax baax na su fekkee ne nag ci ngiiru euh, imaam ahmad ibn hanbal ak ngiiru imaam malik ñoom euh, arkaanul xaj ñeenti yii la ihraam ci la bokk taxawaayu arafa ci la bokk tawaaful ifaada ci la bokk sa'yu bayna safa wal marwa ñeenti yooyu ñooy arkaani ci ngiiru Malik ak Ahmad ibn Hanbal bu dee ci ngiiru imaamu Shafia ñeenti yooyu dag ci yokk wat sakaraw bu dee góora wala wàññi ko bu dee jigéen a wàññi gi moo gën muy xalqa aw taqsir ak toftale eh, ponk yi ni ñu toppal toppaloo nga toftale ko bu dee ngir imam Shafii ñaar yooyu nga ci yokk moom mu am juróom benni rukkunu kon loolu mooy différence ci madahib yi ci arkaanul xaj léegi nag eh, rukkunu bi nga xam ne moo jiitu arkaanu xaj ci gàttal yii ni ñu la wax ñooy arkaani bépp boo ci jàpp ci ñoom ci mazahib yi su fekkee na mazhab uh, abu xanifa nga bokk nga jël ñaari rukun su fekkee na mazhabu xanbal wala malik nga bokk nga jël ñeenti rukun yi wala ñeenti arkaani su fekkee na mazhabu imam shafi nga jël juróom-benn arkaan waaye boo ci mënti jël rek bay def ay rukkunoom rukkunu yooyu liñ la ci wax mooy doo ci bàyyi benn ci aj gi benn boo ci bàyyi amul jàng sa aj yàqu na dangay bàyyi ba beneen at nga ñëw ajaat waaw kon mazhab boo demee na nga fexe ba respecté ay arkaanam boo ci bàyyee benn sa aj yàqu na kon loolu mooy différence entre arkaan ak waajibaat ci xaj bu dee arkaan yi boo bàyyee rek yàqu na bu dee waajibaat yi nag boo bàyyee man nga ko jàng ak deret sans dépend ci rukkune bi nga bàyyi ak euh, ni nga ko bàyyee léegi nag rukkune bi nga xam ne moo jiitu ci arkaani ci li gën a siiw ci mazahib yi mooy al ihram al ihram armal mooy rukkune bu jiitu ci arkaani ci ngir yépp ba mu des ngiru abu xanifa léegi armal kañ lañ ko war a def armal dafa am fuñ ko war a defee place am yu ñu war a armalee euh, ñeent la walla juróom am na sax ñu ne dem ba juróom benn waaye nag li gën a siiw daal mooy yii abyaaru ali moom nañu wax zul xulayfa ali ñu tuddee ko euh, benn waay bi ñu wax ali boo xam mi ngi dëkkoon Suudaan fële ca Darfour nekkoon benn buur foofu moo fa defoon euh, abyaar yooyu ñu tudd ñu askanalee ko ko foofu waa Madina fële ñuy defee seen armal jox fa moom la ñuy wax raabeex waa Cham fa la ñuy defee seen armal zaata irq iraq ñoom foofu lañuy ñuy defee seen armal yalamlam waa yaman foofu lañuy defee seen armal xarnul manazil foofu ahlul najdi fa la defee seeni armal kon yi mooy yi nga xam ne moo ci gën a siiw bu ko defee nag yii nii mooy place yi ñuy defee armal yi képp koo xam ne kii jóge nga benn côté boo xam ne bi benn place ngay njëkk ngay jot ci place yi boo fa eggee fa ngay defee sa armal su fekkee da dëkk biir màkka wala nga dëkk ci benn dëkk boo xam ne bi euh, euh, boo fa boo fa nekkee euh, bala ñoo egsi si yow kii ah, place yi ñu armalee daf la Euh, moo la féete gannaaw daal kon doo jógee sa dëkk boobu noonu naan dangay dem di armale ji di wàññeekuwaat déedéet te am na ñu koy def sax ñoo xam nañi nañuy dem ba màkka euh, bëgg armal ba pare bëgg armalaat euh, bëgg a bëgg a dem ca place yi la di fa armale te ñu ngi dëkk ci dëkk boo xam ne bi mi ngi nekk diggante màkka ak fi ñu armale kon boo dëkkee ci diggante màkka ak fi ñu armale sa kër ngay armale soo dëkkee biir màkk aussi sa kër ngay armale kii armale ci place yi mooy koo xam ne kii fa ngay jógee boo jëm see màkk da nga romb benn place bu ñuy armale ko defee nga armale foofu ñu mel ni waa xarba ifriqiya yi ñu ci ëpp ñu ngi armale da ko madina la ñuy jaar ñoom ab yaar ali la ñuy armale euh, loolu mooy euh, place yi nga xam ne fa la armale ban jamono lañuy armal nag jamono bi ñuy armal moom it euh, mazahib yi am na luñ ci wax euh, am na ku mel ni imaamu Shafii moom nee na comme jamono jamonoy aj ñaari weer la ak juróom-ñeenti fan wala fukki fan muy weeru shawaal ak weeru zil zilqaada ak weeru zil muy kori digg tabaski waaw ñetti weer yooyu mooy weeri aj léegi nag imaam Shafii mu ne amoo droit di armal lu dul ka weeru korite dafa teru sun na tey le premier jour ci weeru korite bu la neexee mën nga armal ba aj ba def sa aj ba pare waaw mais lu ko jiitu amoo droit di ci armal wala boo ci armalee duñ ko considérer aj mais umra lañ koy considérer waaw loolu la imaam Shaafi wax waaye bu dee jumhur bi nga xam ne ñoo ci des ñoom nee nañ daggan na ab jullit mu armal sax ci weeru koor donte weeru koor bokkul ci ci weeru aj yi ñu ne lu tax ñu ne armal daal dañ koy considérer comme ni jàpp mel ci julli parce que boo bëggee julli jaamu yàlla ab julli boo bëggee def da ngay jàpp waaye bu la neexee nga xaar ba waxtu bi jot nga jàpp julli bu la neexee tamit nga jàpp ci suba gi ba tusbaar jot sa njàpp loolu nga julli si kon du sart nga xaar ba waxtu jaamu yàlla bi jot nga soog a euh, def jaamu yàlla bi kon comme ni nga xamee ne doo xaar ba waxtu julli jot nga soog a jàpp bu la neexee nga jàpp lu yàgg heure bu julli jotee nga julli niki noonu tim bu la neexee nga armal lu yàgg heure bu waxtu aj jotee nga dugg ci aj gi loolu la jumhurul wax waaye nag euh, waaye nag mi ngi noonu kon waxtu wi ñi kii daal wi ñi aj daal wi ñi armal daal ci gàttal euh, euh, mooy ci weeru yi mooy li nga xam ne moom la imaamu Shafii wax euh, te imaamu Shafii moom nee na weeri aji ñaari weer la ak fukki fan ñoom ñëpp sax loolu lañu wax ba mu des Malik Malik moom def na weeri yi moom ñetti weer yu mat sëkk la fukki fanu tabaski yi moom considéré wu ko waaye daf koo considéré weeru tabaski yëpp kon loolu aussi lu jar a bàyyi wàlla xel. waa léegi su fekkee ne xam nañ place yi ñuy armale xam waxtu wi ñuy armal gannaaw bi nga xamee na wax nañ ponk yi nga xam ne ñooy ponk lislaam ñu jël ci armal muy bi ci jiitu léegi nag su fekkee nit ki dafay aji waaye nag euh, am na lu mu làmbaayoo mooy am na ridaa li mu teg ci kawam xam nga armal ñaari yére armal ci góor ñaar la mooy li ñuy wax rida ak izar rida bi mooy li ngay teg sa kaw yaram sa kaw ay mbagg mu wàcc noonu izar bi mooy li nga xam moom ngay terexlaayoo léegi nag ñu ne képp koo xam ne kii dangay dem euh, di aji am nga euh, benn morso boo xam ne bi teg nga ko sa kaw muy sa rida waaye amuloo izar ngir ñàkk wala boog tumuranke nga ko ndax am nga droit su fekkoon ne am nga pantalon am nga droit sol pantalon boobu wala amoo droit sol ko euh, kii loolu tim wax nañ ci su fekkee ne loolu la euh, imaamu Shafii ak Ahmad ibn Hanbal ñoom nee nañ su fekkee ne amoo loo terex laayoo mën ngaa sol pantalon waaw te ñoom ñu ngi sukkandiku ci xadis ibnu abbas boo xam ne bi mi ngi nekk ci saxiixul buxaari yi yonent bi naan man la naa lam yajid naalayni falyalbis xuffayni wa man la lam yajid izaar bis asaraawil kon koo xam ne kii amuloo ay dàll yoo sol noonu mën ngaa sol ñaari xuff ku amut euh, loo teraxlaayoo aussi mën ngaa sol pantalon kon ñoom foofu lañ sukkandiku ba nekkoon ku amul loolu mën nga ko def exemple nit mën na nekk màkka nekk fu benn immigré boo xam ne bi yàgg na fa danga moo xam ne amatul amatul mënatul heure ak jot na bëgg naa ak ah seet na ay bagaasam benn morse rek la fa am boo xam ne mën na ko terexlaayoo waaye amul beneen morse boo xam ne bi mën na ko làmbaayoo waaye am na nag ay yére amul lu mu jëndee bëgg naa aj amul ku ko may kooku bu dee ci ngiru imaamu Shaafi ak Ahmad ibn Hanbal mën naa jël benn pantalon boole kook teraxlaayam boobu dem aji dagan na ci moom waaye ñeneen ñi ci des nag ci fuqahaa yi ñoom nee nañ loolu daganut ku ko def dangay dangay dangay kii dangaa bàyyi benn waajib ndax sol ñaari terax ak eh, ak kii ak làmbaay ak euh, loo làmboo boo ñàkk koo sol mooy bàyyi nga waajib te ku bàyyi waajib da ngay rey ngay rey deret kon bu dee yeneen ngir yi ñoom loolu dañ koy bañ ba léegi ñu ngi ci armal rek léegi nag ki nga xam ne dafa armal euh, xam nga ko armal am na yuñ ko tere yu bari bokk na ci yuñ ko tere pour mu bañ koo def mooy bu mu rëbb léegi su fekkee ne yow danga armal ànd ak koo xam ne kii armalut kooku rëbb am rëbbam defar ko ba mu baax di ko lekk xiif nga walla sax bëgg ngaa lekk ndax dagan na nga lekk ci loolu walla daganoon nga lekk ci loolu tiim euh, nee nañ li gën a wér nee nañ dagan na su fekkee na yow rëbbuloo rëbb bi dimbalewoo aji rëbb ji ba mu koy rëbb nee bu boobaa dagan na nga lekk ci yàpp boobu ñu rëbb nee na loolu tim boo demee ci saxiixul buxaari yu ak muslim danga ko fa fekk xadis boo xam ne xadisu ibnu qataada bi nga xamee ne euh, jullit ñi dañoo jóge madina jëm màkka di aji am ñoo xam ne dañoo jaar ci saxaraa bi ànd ak yonent bi am ñoo xam ne dañoo toppoon tefes baxarul ahmar bi nee na biñ demee ñoo ña toppoon ca euh, saaxil kii bi ci saaxil baxarul ahmar bi bi ñu demee ba ci yoon bi ñu gis benn euh, mbaamu àll yooyu bu ko defee abi xataada moom armalu toon ñeneen ñi si armaloon nañ mais moom armalu toon mu rey ko bi mu ko reyee defar ko ba mu kii lekk si bëgg see may gaa yi gaa yi di hésité biñ demee ba ci yonent bi ñu wax ko ko yonent bi laaj leen ndax ba mu koy rëbb da ngeen ko cooy dimbale da ngeen ko waxoon na ko mën nga ndele jàpp ko wala jamal wala ngeen karal ko ñu ne ko defuñ ci dara lépp moo ko defal boppam yonent bi ne leen kon li ci des bu leen neexee man ngeen koo lekk kon ci loolu lañ sukkandiku kon ku armal doo rëbb waaye nag su fekkee na am na ku rëbb te ba muy rëbb dimbale ko ci bu la invité wala mu jox la man ngaa lekk loolu tim ci aju ci la aju ci armal la moo tax ñu ñëw ci léegi nag ci armal boobu xam naa ne ci lañuy ñuy jeexalee ba beneen yoon ñi jël beneen rokkunu armal boobu dafa am ñaari mbir comme niñ ko waxee woon léegi muy am na Euh, yére yi nga xam ne moom lañuy armale am na yéene bi nga xam ne mooy yéeneb armal bi kanta ko sol yére yi muy làmbaay ak teraxlaay ci góor bu dee jigéen muy robbam ak pantalon loolu euh, yére yooyu noonu euh, kii la wareef la képp kuy aj mu sol ko mu jël ko niñ ko ko digalee soo ko bàyyee bàyyi nga benn wareef dangay tuur deret waaye su fekkee ne góor la dañoo sunnaal ci moom muy taraxlaayoo lu weex loolu sunna la ci moom bu amul lu weex nag beneen couleur bu mu am bu ko defee tim wàññiwul dara waaye lu weex li mooy sunna bu dee jigéen nag lépp sunna la ci moom ba mu des lu weex kon góor lañ tànnal terexlaay yu weex jigéen ñu tànnal ko beneen couleur bu dul weex ci li nga xam ne mooy arm mooy yëre armal yëre armal nag boo ko jëlee ba sol koo pare nag daal dugg nag ci armal bi nag armal bi mooy yéene bi yéene aj bokkut ak yeneen yéene yi booy julli walla ngay joxe azaka wala ngay woor weeru koor yooyu yëpp yéene bi mën naa nekk sa biir xol rek sa làmmiñ mën naa bañ a tudd waaye aj yéeneem danga koy tudd tudd gi mooy lan danga naan labbayka allahumma xajjan su fekkee ne dangay def xajjul ifraad su fekkee ne dangay def xajju tamattu nga ne labbayka allahumma su fekkee ne dangay def xajjul qiraan nga def labbayka allahumma xajjan wa umratan su fekkee ne dangay def aj gi sa bopp nga koy defal nga ne labbayka allahumma xajjan an nafsi sa bopp nga koy defal wala umratan bu dee eh, wala umrat labbayk allahumma umratan an nafsi su fekkee danga koy defal keneen nga def na labbayk allahumma xajjan an walidi wala an walidati wala bokk an zamili diw wala ku manti doon kon booy yéene bu dee yow a nga yéene ko sa bopp mën nga ko wax sax ci wolof wana labbayk allahumma xajjan yéene naa ko sama bopp wane nga labbayka allahumma xajjan yéene naa ko sama sama waajur bu jigéen wala labbayka allahumma xajjan yéene naa ko sama frère sama mag bu góor wala sama rakk bu jigéen wala yu demee noonu yéeneb aj nag du changer c'est-à-dire boo demee fi ngay armale ba yéene aj ba pare nga dem ba màkka nga ne e man de sama papa laa yéene loon ajal ko waaye xaaral rek ma defal sama yaay ba pare déedéet du changé yéene aj du changé ka nga xasoon yéene ba jógee ca place ba ba dem jeex na amatul changé boobu benn la ñaareel bi aussi yéene aj du jalgati di dem ci keneen kenn dongu ko moom nga ñëw naan yéene naa aj bii kat labbayka ma xajjan maa ngi ko yéene sama baay ak sama yaay mukk kenn dong ko moom wala nga ne labbayka allahumma umratan maa ngi ko yéene samay rakk wala samay mag mënul nekk kenn dong moom moom loolu kon yéene aj du jalgati du changé kin loolu lu ñu war a xam la aussi ci li nga xam ne moom mooy armal kon mbokk yi ci gàttal lii lañ indi woon ci ponk bu njëkk bi ci ponk aj yi muy armal incha allahu beneen yoon deneen ñëw ci beneen ponk bi ci topp Euh, di ko defee noonu rek ba baa ñuy egg si nga xam ne mooy suñu ñam waxtal suñu ci yàlla dimbale ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ak taysiir lu si jub yàlla ñu ci dimbale lu si dëng ngeen xam ne rek suñu matadeeg suñu néew xam-xam ak seytaane bi ñuy dugg yal na ñu ko yàlla jéggal te ngeen jubbanti ñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa